ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin al-makiin wal amiin wa ala aalihi wa saxbihi wa xayra xadiimihi wa ummatihi wa sallama tasliima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki talibe yi baaxoo ànd ak ñun. fii ci seen sit bu Touba Argentine TV eh, ajuma ju jot ci waxtu wi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci nuyoo bu tedd boobu di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di leen ziyaara bu baax a baax ci weeru gàmb wi ñu nekk di ñaan yàlla yiw wi weer wi làmboo ngir ganek àdduna ki gën ci mbindeef yi yiw woowu yàlla nañu suñu borom taw féexale ba ñu màng ko ñu def ci jaamu yàlla ya gën a kawe kawe kawe kawe ci jaamu yàlla yi te yàlla su borom nangul ñu ko te mbooleem bàkkaar bu jiitu bu mu fekkoon ci ñun yàlla ñu ko suñu faral mbooleem bàkkaar yi ñu yàlla na nar na too ci suñu kanam yàlla ñu ko fegal ci barkeb ngeen ji mbindéef jëwri ni sunu yaakaar ja Sëriñ Tuubaa mi nga xam te nii weer wii mooy aw weeram ak ci barkeb sëñ Tuubaa mi nga xam te ni aw weeram la génn nga xam ne ñaari weer yu tedd yi nga xam ne weeru alxaadim wal maxdum la nuyoo boobu ak ziyaara boobu ak ñaan yooyu ñu ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadul Muntaqa di xalifa général de Mourides di ko ñaanal yàlla su borom yàlla na yàlla suñu borom gën a dollee guddal aw fanam yàlla na suñu koo tëbb ak wér defal ko mbooleem euh, taalibe yépp defal ko mbooleem jullit ñëpp yàlla suñu borom. gën a euh, dollee sàmm lislaam ak ñooñu lislaam mbooleem ñi nga xam te ni yàlla dogal na ñu jiitu ci këru dëgg dafa dafa xaare yàlla na leen su borom gën a dolli yërmande yàlla su borom gën leen a dolli ak njëggal ñi nga xam te ni ñu ngi ci àdduna bi di dund te yàlla teg leen ay nattu yàlla na su mboroom woyofal nattu yooyu ñi ñi tëdd ci euh, kaso yi te seen coobare bopp bàyyiwu leen fa nattoo leen fa yóbbu yàlla suñu borom mi nga xam te ni moo leen teg natt yooyu yàlla na ko woyofal ci ñoom te euh, taw feex leen ba nga xam te ni ñi nekk ci ñi ñàkk seen liberté ñëpp danañ danañ danañ am seen liberté te kenn dootu tabbeeti ci natt boo xam te ni dana waral nga dellu ci kër googu ñi tëdd ci lali hôpital yi yàlla na yàlla saafara ñu mat di ñaana lañ te bu kenn xeeb sag ñaan ndax fi nga toog. mën ngaa tawasulu ci jàng alquran mën ngaa tawasulu ci def istixfar mën ngaa tawasulu ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën ngaa tawasulu ci julli ñaari rakka tàllal say loxo ñaan yàlla ñi tëdd ci lal hôpital yi rawatina ñi doon ay jullit yàlla suñu borom saafara leen teggil leen jàngoro jàngoro jëleen jëleen jëleen dal yow mi toog ci di jàkkaarloog ñun di ñu seetaan bul xeeb sa ñaan googu ndax yàlla waxul kenn dara te kenn xamul ñaanu kan la yàlla di nangu te sa ñaan googu jëmee ci ñoom Euh, mën na leen jariñ ñoom ña fa tëdd te yàlla su borom dana la ci bindal aw yiwu yow mi nga xam ne yaa toog di leen di leen di leen ñaanal ñi ngay ñaanale sa bopp yàlla sàmm la ba dara du la dal wala bu la dara dara ngay ñaan yàlla yàlla su borom teggi ko nañ ciy bàyyiwaale xel ñi nga xam te ni euh, dañoo tëdd ci lale hôpital yi ndax boo ko seetee sa bopp boo tëddoon am lu manqué ci sa wér-gu-yaram rek. te ngay xam njariñul wér kon nag donte da ngay jàng matlabu shifa yi sax jagleel ko ñi la jege ak ñi la sori ñaan ci yàlla ci barke bi matlabu shifa yi ak ñaan yi ci sëriñ bi ñaan yàlla su borom nangul leen ko bu ko xeeb mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci weeru gàmmu weeru gàmmu bu ñu fi nekkee bu ñu ci nekkee muy weer wi nga xam ni ci la mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent boobu nga xam te ni moom la yàlla tànnoon ci biir ñi mu bind ñëpp. def ko mu gën ci mu gën ñëpp loolu ngëneelul yàlla la ngëneelul yàlla la mu tànn ko def ko mu gën ñépp bi mu ko tànnee def ko mu gën ñëpp loolu jagleel la goo xam ci ne yàllaa ko ko jagleel ni yàlla defee jagleel ku nekk mu jagleel lu ko lu ko lu ko sopp wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yashaa wallahu dhul fadlil azim yàlla mooy xool ku ko sopp mu jagleel ko lu ko sopp lu ko lu njëkk ñuy dugg ci waxtaan wi sax ñu ngi eh, yëkkati yow bu tedd di ko jëmale ci mbooleem sunu mbokk yi jullit yi nekk ci biir réew mii ci di Argentine eh, rawatina sunu mbokk yi nga xam te ni ñoom lañ gën a ñoom lañ bokkal Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni moo doonoon soppe bi yonente ba wax ko loo xam te ni kenn mos ko ko wax la mu saf la neexaayu la mu ko wax maanaam wax dëgg yàlla <laughs> Euh, ñi wax jëmee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonente bi ku ko doon gëm naa ne dana la wax ne la ma ci Sëñ Tuubaa waxal wax moo ma moo ma moo ma ci moo ma ci dàqal te yàgg nañoo liir wax yi ñi wax jëme ci yonente bi waaye ñëpp ci arab ñi ci ëpp ci arab la ñu wax waaye wax dëgg yàlla booy jàng mbindum Sëñ Tuubaa maanaam da nga ciy yëg loo xam te ni booy jàng waxi keneen mu jëm ci yonente bi lu mu neex neex neex neex neex. la ngay yëg ci mbindum Sëñ Tuubaa doo ko yëg ci mbindum keneen loolu nag euh, may yàlla la ki Sëñ Tuubaa waaye may yàlla la yum jagleel yonent bi jaare ko ci Sëñ Tuubaa it <coughs> euh, kon ñi ngi yëkkati nuyoo bu tedd bu kawe di ko jëmale ci mbooleem mbokk taalibe yi nekk ci biir réew mi di ko teg ci loxob jëwrin Sëñ Mor Talla Sall mu jox jottali ko mbooleem mbokk taalibe yi yëpp rek <coughs> di nuyu bu baax a baax mbooleem mbokk yi ñu topp ci euh, fépp ci wàllu àdduna bi ndax wax dëgg yàlla la la ngay def émission bi doo danga yaakaar na ñu nekk ci biir réew mi rek ñoo ñoo ñoo ñoo koy ñoo koy topp waaye fii ba Sénégal ci bitim réew foo foo fépp rek bu ñu noppee dañuy seetlu ne mbooloo mu bare bari ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon topp kon fu waaye di ñu toppee rek ñu ngi lay yëkkati nuyoo bu kawee bu tedd di la ko jagleel di jagleel. ab nuyoo ba tey boo xam ne dañ koy jagleel suñu waajur euh, émission bi passé damaa noppi xool sama téléphone mu yónnee ma ci message ne ma mi ngi doon topp émission bi kon nag ba Sénégal mi ngi topp émission bi ñu ngi koy nuyu bu baax baax soxna Ndeye Lo euh, di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam te dolli ko wér di ko ñaanal waa kër gi yëpp it suñu waajur soxna ñaana jang ak sunu waajur soxna Oumy Jaxate ak mbooleem njabootu suñu Abdu Salaam geegu mbooleem njabootu suñu Maxtaar Bintaloo gi yëpp rek ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen taw ak mbooleem mbokk taalibe yi ci lu dul settee e, keroog bi ñu noppee ci émission bi li ñu suñu góor a ngaay góor a sekk woo woon ci biir émission bi doon ko laaj sax am na yeneen information yoo xam ne nii dolli nañu ko ci ci leeral gi gi ma doon leeral ci diggante sëriñ Maxtaar Bintaloo ak sëriñ Ndaam Abdourahman Lo eh, loo xam te ni wax dëgg yàlla man lu lu yees tàq la lu yees tàq la ci man loo xam te ni xëy na lu ma waroon a xam la ndax lu ma jege la lool wax dëgg yàlla waaye keroog laa koy doog a xam mu dama wax seen relation ñoom ñaar sëñ Maxtaar Bintu Lo ak sëñ Daam Abdourahman ba di ma wax ne sëriñ Maxtaar Bintu Lo am na rakkam yu ñu wax soxna Awa Ndey joo xam te ni moo ko sëñ Maxtaar Bintu Lo ñoo bokk ndey ak bàyyi. sëriñ ndaam abdourahman loo moo ko dëkkoo woon ba nga xam te nii mooy waajuru soxna rama mbàkke mi nga xam te doom la ci sëriñ ndaam abdourahman ak sëriñ ak soxna awanday moomu soxna rama mbàkke euh, sëriñ murtada moom cheikhul xadim moo ko dëkkoo woon mooy waajuru sëriñ maam moor mi nga xam te ni moo fi toogee jataayu sëriñ murtada tey jii mooy waajuru it soxna ami mbàkke di waajur yi sëriñ xaasim moom tamit kon loolu lu bees loo xam te ni wax dëgg yàlla man xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma ko woon li ma ci it ba mooy waajur yi e, soxna doon li ma ci yoo xam te ni wax dëgg maanaam man e, sama xam-xam àggu woon xëy na damaa tiimul message bi ne di ko déglu ba mën koo leer te ba mën koo liir te it e, jàpp ma dëgg-dëgg li mu ci li waaye ba tey it na ma ci loo xam te ni sëriñ. maxtaar bintaloo moom tamit dëkkoo woon na dëkkoo woon na doomi sëriñ ndaam abdourahman loo ba nga xam te nii mooy ci euh, waaye juru sëriñ abdul jamil loo di ko ñaan yàlla yàlla su borom yeesal yéen ma dem ak njëgalam ak ak ak ak ak ñam ñam ak ñamu ñamu ñamu bokkal si maxtaar kon loolu ak relation la goo xam te nii gu jegante la goo xam te nii dolli ko na ci li ma xamoon ci diggante Serigne Ndam Abdourahmane Lo ak sëriñ Makhtar Binta Lo <coughs> kon loolu ma ko doon dolli rek ci émission bi xëy na ci émission bi lay weesoo ci la ci la waroon a dugg waaye ndegam ginnaaw bi laa ko xaman laa ne mu ñëwaatee ci émission bi incha allah danañ ko ci gën doole leeral kon mbokk yi xam ngeen ni ci ñu ngi ci weeru gàmmu di weer wi nga xam te ni weeru soppeeb Serigne Touba ba sax mënees na ko tudde ndax ku wax yonent bi rek sa xel dem ci Serigne Touba ko bëggee woon. ak fa mu ko tegoon ak na mu ko doon bàyyee xel ci léppam ci ay ñaanam bu dee ñaan yàlla nga xam ne day ñaan yàlla lu mu ñaan yàlla rek da koy tawasuloo yàlla nangul ko ñaan googu ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama na ba moom sax weesu na moom Sëñ di ñaan yàlla waaye dem na ba yonent bi di ko ñaan na ba yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla Sëñ te loolu firnde laa ci am firnde laa leen ci wax firnde li mooy ku jàng euh, xasiida ak sëñ Tuubaa gi mu tuddee midaadi wa aqlaami liman zahzaha al yamma kama zahzaha sheytaana wal jahla wal ghamma boo demee ba ca biir da nga fa fekk bayit woo xamante ni da ngay dégg sëñ Tuubaa di wax ne talatta lii fawqa matlabi min allaahi rabbi wa raja lam yu xayya bi ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa day sàkkul nga ma ci yàlla sàkkul nga ma ci yàlla lu kawe la ma doon sàkk lu féete kaw la ma doon sàkk man la ma doon ñaan yàlla la ma bëggoon ci yàlla ba di ko ñaan lu féete kaw loolu nga ma sàkkul ci yàlla te yow doo am yaakaar ci yàlla mukk ba di ko ñaan yàlla di tas sa yaakaar war rajaalam yu xayya bi wax ju neex la ju doy waar joo xam ji nii ku gis sëriñ Touba li mu am ci sunu borom ak li mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu rëy rëy rëy rëy rëy wër laa bett ndax yàlla dafa dafa dafa jeexalul dara te nituk yàlla day xam ci yàlla loo xam ci nii yeneen mbindeef yi duñ ko xam ci yàlla muy tabeg suñu borom gi ak bari lekk suñu borom gi ba ñoom bu koy ñaan duñ ko ñaan kese la xelum doomu aadama di daj lu féete kaw loolu lañ koy ñaan imaginal xelum doomu aadama bu mënee ñaan yàlla lu féete kaw njortam te Sëñ Tuubaa moom bokk na ci ay ñaanam moom lu du ñaan mukk moom lu la mu bëgg waaye lu lu lu féete kaw la bëgg rek euh, lay lay lay ñaan ku ne gis na ko ci bindam fawqa zanni fawqa matlabi lu féete kaw sama sàkkuteef fawqa maraami hmm? yu demee noonu rek ngay fekk ngay fekk ci ay mbindam kon nag bu amee loo xam te ni xel mënu koo nangu loolu lu lu normal la ndax moom ñaanul lu xel mën a nangu ku ñaanul lu xel mën a nangu nag buñ la mayee loo xam te ni xëjul ci mu xel loolu war naa dana war a jaaxal dana war a jaaxal dana war a jaaxal ñëpp ndax boo xoolee li ko yàlla may ci doomu aadama yi nga xam ne maam nit ñi bu njëkk nañ bu ñu daan ñaan nit dañuy ñaan nit ñi ñaan ñaan yàlla ci nit ñi li nekk ci nit ñi ak li seen i am am ak yu yu yu ni mel ak ñu déggal leen ak yooyu. sëñ Tuubaa nag maanaam la ëpp solo ci doomu aadama yi la ñaan yàlla la ëpp solo ci doomu aadama yi jamononteeg moom ak la ëpp solo ci doomu aadama yi nga xam te ni ñoo ñëw ginnaawam muy xol yi xam nga xol moom dafa bind ci mbindam ne al qalbu kal maliki fi l a'daa'i mahma yamil tamil maa iqtidaa'i xol dafa mel ne buur ci biir cër yi fu mu jëm rek fu buur jëm rek fa la dag jëm kon ak ay mayam wërta euh, jaaxal euh, lu bari bari xëy na sax loolu du waxtaane waaye bu ñu xoolee digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallama te ñu nekk ci weeru gàmmu war a waxtaan ci gàmmu mën nañu ñàkk a tudd euh, mënuñ ko ñàkk feeñal tuuti moom moom moom jëm Sëriñ Tuubaa nga xam ne lépp lu mu am da koo ñaan yàlla ci barke bi yonent bi te yëmul ci ñaan ko rek dafa da ko booleeg jëf di liggéey ndax nit ki doo ta doo toog rek di ñaan yàlla eh, ba noppi eh, toog na di xaar déet ñaan gi da ko boo da ko booleeg ay ay ay eh, ay yëngatu yoo xam te ni dana tax yow li ngay ñaan teggin ya ñaan ya war a àndal ak sa diggante ak sa borom da ko matale mu ñaan lu kenn ñaanul yonent bi ñaan la ko ndax yonent bi da ko faral li ma ko waxee léegi ci talabta rasulallahi li fawqa matlabi minallahi rabbi ak waxin yu bare sax yoo xamante ni raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdallahi loolu waxin woowu mooy yonent man man suñ euh, suñ tubaab dafa dafa yàgg ñaan yàlla doon liggéey liggéeyal katu yonent bi sallallahu alayhi wa waaye dafa dem ba yonent bi sax sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla mu defal ko Sëñ Tuubaa doon ab liggéeyal liggéey ki koy ki koy liggéeyal raama rasulullahi rasulullahi ci boppam moo sàkko ci kan la sàkku min ilaahi ci sama borom man Sëñ Tuubaa lan la sàkku ci yàlla sama borom mooy kaw nii xadimaho ma nekk ab serviteur am ki koy liggéeyal ki nekk ci ay ki nekk ci kiy jug ci ay service am waaw abdallahi ndax ñaari e, tur yooyu bokkoon na ci tur yi gën a neex ci Sëñ Tuubaa mooy alxadim al abdu alxadim al abdu alxadim doon jaamub yàlla di liggéeyal katu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy nekk ci yàlla lam lam lam lam war a doon ci yàlla waaye nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam war a doon ci moom loolu am solo la mooy jox yàlla ab wàccuwaayam nangul di moom kese mooy yàlla waaye nag fekk fa ka yàlla faral nga far nga far nga faral ko dana tax a am la nga bëgg ci suñu borom loolu bu ñu koy bàyyi xel eh, Sëñ Tuubaa mi nga xam ne nii moom lañ topp ci ginnaawam. doon ak njabootam danañ bàyyi xel bu baax a baax tubaarkàlla wàccuwaay bañ koy jox jox ko wàccuwaay ba mu am ci suñu borom ba ko suñu jox jox ko wàccuwaay ba nga xam te ni moom la doon sàkku ci yonente bi sallallahu alayhi wa ba am ko jox ko wàccuwaay ba xam ne moom la doon sàkku ci suñu borom am ko moom tamit muy al abdu al xadim ba noppi nag mu doon wàlli yu yàlla woo xam te ni wax dëgg yàlla xel nangu na lool. mu féete kaw wàllu yàlla yi ci li mu defal yonent bi sallallahu alayhi wa ndax boo xoolee te damay seetlu ay mbindam ba yàgg ma ne Sëñ Tuubaa de xasidaam yëpp rek dafa mel ne ay mbubb la yoo xam te ni da koo dagg ci tiisi bu rafet bu doon jamono yi ñuy wax euh, tiisi nga xam ne ni en tant que sénégalais ñun ñi nga xam ne ni wolof la ñuy wax xam nañ ko muy jesneer la ñuy wax nga xam ne kon mbubb yi mu ñëwal yonent bi sallallahu alayhi wa ci ràbbe ko ci yëpp ci basé jasneer la ko la ko la ko la ko ràbbe la ko la ko la ko la ko la ko xotee ci basé boobu la ko xotee waaye sullu ko ci mu dëggalu ko ci mu mukk am mbubb moo xam te ni day cëkk déedéet mbubb yu jot sëkk la ko la ko la ko daggal ba noppi nag daggal ko ci ay mbubb yu bari ba noppi tànn couleur yi gën a rafet tànnul couleur yi gën a rafet boole ko dagg ci ay mètres yu doy waaye da ca boole jox ko. téyër bu mën a ñaw mu ràbb ko rab rafet boo xam ci ne da koy demine demine yoo xam ci nii loo lu nit ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw am na mbubb yoo xam ci nii loo ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ba mel ni Moustapha Lo boo ko solee ñu ne la sawaay sañ nga moom boo xoolee tagg yi mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu rek nga ko man a mën euh, ci wàll yëpp boo jëlee xasida gii nga xam te ni weer wii aw weeram la muy jës bul xulóob muy jasbul xulóob da nga naan day alhamdulilah rabbil alamin ndax boo koy jàng di ko teewlu wala ngay déglu ku koy jàng di ko teewlu dana neex ci yow ba nga xam ni day mel ne mbégte ma Sëñ Tuubaa amoon ba mu koy taalif moom ngay yëg yow mi koy teewlu ak wala nga wala nga wala nga koy wala nga koy jàng ci neexaayu xasida gi donte ci langue arabe la ko sëriñ bi taalife boo xamul langue araab sax. sa yaram dana yëg neexaay yoo xam ci da nga xam ne kii li muy wax lu neex la loolu nag mbir la moo xam te ni du neex expliquer am na loo xam te ni euh, dañ naan ki ko màcc rek moo ko xam ki ki ki ki ko ñam ki ñam euh, yëf yi rek moo xam li mu li mu li mu saf ki ko ñamul euh, bokku ci boo bëgg ko boo koy expliquer loolu dañ naan ne saa da ngay kii rek waaye li ngay neex lu moom neexewul ni nga koy neex loo jësbul xuloob nga nga indi muqad euh, muqaddamatul am daax na ko waxee li ma doon wax léegi rek ne ko labista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajazal kulla yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu fekkoon tedd nga dafa doon ay yére yow da fekk tedd nga nga xool tiis ba gën a rafet nga ñaw ca mbubb mu jot nga sol ko labista siyaabal majdi waaye wal fadli dangaa sol mbubbum tedd nga sol mbubbum ngëneel mbubbum mbaax wala wala sol mbubbum kawe yow sa dara suufewul waaye nag la mu daaneel bay doo moo ca dàq muy wa fiika min al axlaaqi ma ajazal kulla am nga jikko yoo xam te nii maanaam lottal na lottal na lottal na ku ne mooy mooy xel mënu koo daj li nekk ci yow ci ay jikko yu rafet xel mënu koo daj borom xel mënut a xalaat xalam di xalaat ba xelam daj loo daj daj daj loola wala waxkat di wax ba aw làmmiñam tudd lañ war a wax ci yow wala bindkat di bind ba xalimaam bind lañ war a bind ci yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jikko ci ay jikko yu rafet xoolal ma waxiinu rafet woowu mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn bayit woowu labista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajazal kulla continuer di ko tagg ci ak njàmbaaram ci yonente bi sallallahu alayhi wa bu ma sànn di nekk ci ab xeex wala mu jàmmaarloog ay noonam njàmbaarte te nga xam te ni daana feeñ ci moom ki la koy misaale ci naa ko laqiita min al a'daa'i maa dallanaa maan ala annaka laysu alladi xisbahum falla yow day yonente bi sallallahu alayhi wa daje nga ak noon yi te dajeeg nga dajeeg noon yi noonu yi am nañ ci wan am nañ ci ay preuve yoo xam te ni xam nañ yow yaay gaynde gi te gaynde moom ci digg àll kenn kenn mooy not euh, ñëpp kenn du ko not laqiita min al a'daa'i maa dallanaa ma'an ala annaka allaysu alladi xisbahum fala yow daal bu fekkoon noonu lislaam yi ak dañoo mel ne ay rab yu nekk ci digg àll bi yow da mel ne gaynde ci seen biir te gaynde moom bu nekk ci digg rab àll yi moom moom moom moom wax dëgg yàlla euh, euh, ñëpp ay til lañu lañu lañu lañu lañu lañu doon la doon ci moom xoolal tagg taggin wu rafet woowu mu ko taggee ci ak njàmbaar ba noppi mu nekk nag yow da ngaa ñaar da nooy nipp ba noppi dëgër këng ni mu ko waxee ci bayit woo xam ci benn bayit ci la ko waxee laqit euh, li man jaa yabghi minka naylan maa al huda ataaya bashirin tadfaul faqra wal maxlaa ne ko képp koo xamante ni dafa ñëw di di wut si lu mu lu mu am day walla muy wut si ak jub ak gindiko bu ñëwee dana fekk loo xam te da ko jox loo xam te ni bu fekkee ba muy ba muy ñëw dafa dafa ñàkkoon ba yorul dara buy dem dana dana woomal ba nga xam ne kenn du ko ëppaleeti xol waxin wu rafet woowu muy wax ak yonent bi ataaya bashirin tadfa'u al faqra wal mahla bu fekkee dafa ba muy ñëw ba muy jógee këram di ñëw ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa indaale woon bekkoor buy dellu dana yóbbaale naataange li man jaa yabghi min ka naylan maa al huda euh, ataaya bashirin tadfa'u al faqra wal mahla waaye nag li man jaa yabghi min li man qaadahu jahlun li man qaadahu jahlun lakum za tajarru'in adabun shadidun yurithu al faqra wal qatla macha allah boo xoolee ñaari bayit yooyu ne ko bu fekkee nit dafa jóge këram ñëw ci yow jàmm dong yëkkati ko ak bëgg lu am bu ñëwee la ko yëkkati woon aajom dana faju waaye koo xam ci nii nag ak réer moo ko wommat ak dëgër euh, bopp ba mu yaakaar ne bu ñëwee ci yow bañ la doona tax la mu bëgg am bu ñëwee la mu fi la mu fay jël la muy jële ci yow mooy azabun shadidun ay duma yu metti ay mbugal yu metti metti moo moo moo moo koy xaar boobaa waaye nag adabun shadidun yuurisul faqra wal xatla duma yu metti yoo xam te nii dana ko jural ak ñàkk dana ko du jural jural sax man man man man taa jaaree ñàkk ñàkk ba kanam kon waxiin yu neex yooyu la ko Sëñ Tuubaa wax ki di ko tagg xamal ne ko yow moom euh, wax dëgg yàlla da nga mel ni paaka rek bu la nit day jëfandikoo ngir lu ko amal njariñ mën na koo jëfandikoo bu ko nit day jëfandikoo nag ngir lu mu lara keneen nit mën na ci mën na mën na mën na koo jëfandikoo ndax comme ni ma ko waxee ci suñu mbokk sëyin yi ak ture ture yi bu ñu tiimee am xar bu bëgg cee defar loo xam ci dañ ko mën a jëfandikoo paaka bi dañuy jëfandikoo waaye bu leen seen noo noon jaaxaloon it paaka ba mën a mën mën na mën na leen a euh, euh, tàqaleeg njàqare la xam te nii mën mën mën mën mën na caa mën na caa mën na caa juddoo sëriñ bi wax wax yu neex a neex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yu baree bari muqaddimaat googu rek buñ ci doon wax fii ba weeru gàmmu wi jeex duñ duñu xaajal ci waxin yu neex yi nga xam te nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa wax na ko ko rawatina ci xasidaam googu naa ko yazuruka minni xaysuma kuntu yaa muxyi fuaadi wa ruuxi bil bushaaraati daa toyi yow day muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam te nii yaay dundal sama xol am gi ma am ak xalaat gi ma lay xalaat mooy dundal sama xol yaa muxyi fuaadi wa ruuxi mbégte mi nga xam te nii dinaa ko amee ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa dana dundal sama xol dana dundal sama euh, sama sama sama ci ay mbégte foo mën a nekk rek maa ngi lay ziyaara waaye maa ngi lay ziyaara ci sama xol maa ngi lay ziyaara ci sama ruux donte sama sama jëmm sama jëmm ji mi ngi sori lool dëkk boobu nga nekk muy madinatul munawara comme na ma ko waxoon ci xasida googu ci euh, raiya wa huwa allazi iqa jismi an ziyaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru moom yonente bi sallallahu nga xam te nii gàllankoor nañ sama jëmm ji ba mënu koo ji waaye sama lami wii ak sama xol bi day fu mu toll rek mi mi ngi koy si mi ngi koy siyaare te lool lu neex xam la xam la mbokk yi tukkikat yi danañ ci euh, neex a jox messal lool ndax danga nekk fii ci réew mu sore moo xam te ni boo fa jóge jëm senegal da nga tardé ñaari fan daanaka waaye sa xol bi foo toll yaa ngi ci gis di ci ziyaara ak di ci nemmiku koo xam te ni day mujj mel ne yéen a bokk dëkk yéen a bokk dëkk yéen a bokk dëkk ci nit koo xam te ni danga nga koo ëmbal ak cofeel nit koo ëmbal ak cofeel da nga toog di ko xalaat. ak di ko nemmiku ci ci ci ci boo yewoo ak booy nelaw sax ci ak yeewu ak ci nelaw ak ci ak ci nelaw moo tax Sëñ Tuubaa li mu wax yonent bi sallallahu lépp rek lu mën a jël misaal la ci boppam ci la ko ne yauddu masaaya kallati sax yi yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal say ngëneel yi nga xam te ni amul fu mu yem sama tagg wi nga xam te nii damaa dama ko warloo sama bopp dana nekk di lim sa sa sa ndaax sa ndaax yooyu ak sa ngëneel yooyu sama tagg wi ma lay tagg nga xam ne dama ko warloo sama bopp dama gàll sama bopp muy lu ma war ndax sëñ Tuubaa dafa gàll boppam ne ko ne ne yonent moom dafa warlul ay tagg ay tagg comme na ma ko waxoon eh, ci beneen bayit ne la alay lahu alayya li wajhillaahi day nu fanaan dam man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama ko yoreel bori tagg ay bori tagg laa ko yoreel nga xam ne kon li muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp la ko kon day jéem a fay bor boobu te bor boobu moom moo ko gàll boppam moo ko lépp moo ko moo ko lebal boppam ba noppi gàll ko boppam fas yéene ko fay nag muy wax ju neex a wax na ko ci bataay yi ci xaside woowu xaside gu neex la goo xam ci nii eh, ca biir ca ca mujjantal ga sax ma nga naa ko yu bajjilu kulli kullakal yow mama xadin wa insha eh, yow yonent bi sallallahu wa sallam sama lépp mën Sëñ Tuubaa day màggal sa lépp yu bajjilu dana màggal kulli sama lépp mën Sëñ Tuubaa kullaka sa lépp yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool li ñu waxee nu neex woowu sama xol sama làmmiñ sama jëmm yëpp day màggal sa jëmm ji yépp lépp lépp sa jëmm ji yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag tey ak ëllëg ëllëg a ci yem te bari bari li may li may màggal sa jëmm ji du tax mukk ma ma sonn ma sonn ma ma duma dem ba découragé wa insha rabbi laa ura dahra daawan yi du ma ci lott mukk ne man kat sonn naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki sama lépp di màggal sa lépp mbokk yi seetlu leen bu baax a baax bay bayit woowu yaakaar naa képp ku yàgg a jàng euh, muqaddamatul am ndax boo agsee foofu moom da nga am sentiment booy sentir boo xam ne nii donte xamoo li muy wax da nga xam ne kii moom li muy wax neex na ndax yu bajjilu kulli kullakal yawma ma radin wa inshaa rabbi la ura dahra zawan yi mu teg ca bayit woowu mu ko tey ji naan yu akkidu kulli habla hubbi wa xidmati bi man qaada li xayra almaqaamaati bi toyyi sama lépp mi ngi feddali sama buumuk cofeel gi ma am ci yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallama yu akkidu kulli xabla xubbi waaye nag sama lépp it mi ngi feddali buumug liggéey gi ma lay gi ma gi ma gi ma gàll sama bopp di la ko liggéey di la ko di la ko liggéeyal ci ki nga xam te ni yàlla wammatal na ma maqaama yi gën ci maqaama yi te nekkul di ma ko jox par benn mbir da koo taxañ jox jox jox ma ko ci barke moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nekkul sax di ko di ko di tudd turam waaye day wax melokaan yoo xam ne nii ci barke bi nga xam ne nii ci la ma yàlla taxañale maqaama yu kawe ya jox ma ko sama lépp day feddali buumu sopp gi ma ko sopp akidu kulli xabla xubbi wa xidmati bi man qaadali xayral maqaamaati bi tayib muy waxin wu am solo ci mbindum sëriñ bi lu mat eh, lu mat a bàyyi xel ni ma ko doon waxee léegi ci xasida ak raaya eh, nga xam ne sëriñ bi fi mu ko tàmbalee sax daf mel ne da dafa waxin wi ni mu koy waxee day mel ne xol bi ak jëmm ji ñooy ñooy ñooy yeddante xol bi mooy yedd jëmm jëmm jëmm jëmm ji ndax xol bi ni mu amee cofeelu dem ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi jëmm ji amul euh, kattan googu ndax euh, jëmm ji booba noon yi euh, gàllankoor nañ ko ba mënta génn Sénégal dem ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kon xam ne ne sëriñ bi waajoon na ci biir dundam ba bëggoon a ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa dégg ko ba nga xam ne xasida ko kon mi ngi ci leeral bëgg-bëgg boobu mu amoon ci ziyaare ji yonent bi waaye mi ngi xam ne ne di wax gàllankoor gi nga xam te nii yaram wi gàllankoor na ko xol bi téewul xol bi la léeg mu bàyyi fi jëmm ji dem euh, mak makkatal mukarrama wala madinatu munawwara euh, ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa dem na ba nga xam te ni sax da ko dafa dem nekk fa nag dootu fa jógeti ndax way nii la xoo jaarun hunaaka yazur la ko mujjoon wax ca euh, asiru ma al yi waaye nii inni lahu jaaroon man mu naa doon ab dëkkandoob yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam te ni foofa hunaaka foofa ca ca ca madinatu munawara yasur boo xam te ni fu mu toll rek mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy euh, visité di ko di ko di ko loolu it luñ mën a jàngale yow mi nga xam te ni da ngaa sori euh, suñu dëkk boobu Touba wala nga sori madinatul munawara te sa xol bi ëmb ak cofeelu siyaara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loo am am am gàll gàllankoor wërta mën a téye nga sa sa bëgg-bëgg boobu nga réaliser ko mu doon euh, lu loo loo amal mu doon loo amal te loolu tarab cofeel dana ko dana dana ko ko may dana nit nit mën naa dëkk biir Tuubaa ba noppi du la gën a jege sëriñ bi nit mën naa dëkk biir Makkata. Euh, euh, madinatul munawara du la gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lépp ci sab ci sab xol lay doon ci sab xol lay lay lay lay aju ki la doon waxee ne qadaaqa jismi ya amal qalbu bi min al manaqibi taswifun wa israaru sama yaram wi gàllankoor na li nga xam te ni xol bi mi ngi ko doon sàkku muy dem ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi a sallam waaye dem na ba nga xam te ni sax day naqarlu ñàkk mën a dem gi ci waxiin wu neex bam naa ko xafaaru lixfir dunubi waf ku kan kabali bi man alayya li tarki zawruhu aw zawrahu aaru bi man alayya li tarki zawrahu aaru mi ngi ñaan yàlla ne ko yow yow yàlla mi nga xam ne yaa mën a jéggalaate yàlla nag ma jéggal samay bàkkaar waaye woof waf ko kan kabale yi sama jéng bii mi nga xam ne dama dama dama dañ ma ko dañ ma koo jéng yàlla ko yàlla ma jéngi naan jéngi ñu nekk ñu nekkoon ci daara ja xam nañ luy jéng ak jéngi bu ne diw jéng nañ ko mooy jël nañ ab jéng takk ko ba nga xam te ni amatul liberté waaye bu ne jéngi nañ ko mooy dind nañ jéng ba woof ko kan kabale yi bi day ñaan yàlla de yàlla na nga tinki sama tënk sama jéng bi nga xam ne moom a téye ba mënumaa dem réaliser li ma bëgg yàlla na yàlla ma ko yàlla ko tekkil waaye nag maa ngi la koy ñaan bi man ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam te ni alaya bi man li tarki zawrahu aaru ci barke bi bi nga xam te ni bi nga xamante ni ñàkk gi ma ñàkk ko euh, dem ba ca Madina ma toog ci bërëb ba ma ziyaare ko gàcca la ci man suñ mbokk yi dégg leen wax wax ji wax ji tax ci barkeb ki nga xam ni ñàkk gi ma ko ñàkk a ziyaare gàcce la ci man yàlla na nga ma defal njéggal samay bàkkaar te tinki sama tënk ci la doon waxee waxee euh, no woowu nga xam te ni dafa àbb euh, àbb na ci biir xasida gi ñaari bayit yoo xam te ni nit ku baax moo ko doon wax mu xool waxin wi waxin wi neex lool mu jël ko dugal ko ci biir xasida gi muy bi man yuxaatibu nii fii zawri rawdatihi baytaani xaw li man bil am ammaaro ci barkeb ki nga xam te ni maa ngi waxanteeg moom ci ziyaare rawdaam rawdaam ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi indi ñaari bayit yoo xam te ni nit ku baax ku doon digle ku doon lu baax moo ko waxoon muy ñaari bayit yi muy bëgg wax naan zurman tuhibbu wa in chattat bi kaddaaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamna annaka bu'dun min ziyaaratihi inna al muhibba liman yahwaahu zawaaru bay di neex la boo xam ni nii maanaam man man démb sax damaa toog ba yàgg ma ne taalif euh, ñaari bay yi jëpptu ma jëpp mu ban xasida la nekk waaye bu ko Sëñ Tuubaa andiwutoon ci raaya bi maanaam bay di lu mu neex neex neex neex maanaam ampleur bi mu am ak yaatu gi mu yaatu ak nga xam ne kon danga xam ne wala ki koy jàng bànneex bi mu ci yëg dugal nga ko Sëñ Tuubaa dugal ci mbindam moo moo moo moo moo ko ko yóbbu moo yóbbee te euh, ñaari bayit yi ki ci wax day wax ne zurman tuhibbu ki nga bëgg kat dee ko ziyaara wa in shattat bi kat daaru donte kër yi ngeen dëkkee dafa sorante bu mu la nga di ko nga di ko ziyaare donte da ngaa nekk Argentine ki nga bëgg nekk senegal Sénégal déedéet distance bu sore bi bu mu la nga di nga di nga di nga di nga di ko siyaare bu fekkee da ngaa bëgg Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nekk euh, ci biir Tuubaa yow nga nekk bëgg gi nga bëgg Sëñ Tuubaa bu mu na nga toog ba yàgg nga teewloo ci sam xel ne yaa ngi biir Tuubaa yaa ngi ci biir bërëb sëñ sëñ bu mag ba yaa ngi toog ci bërëb ba di ko di ko euh, di ko di ko siyaare fam fam fam fam nekk ndax nit mën naa dem ba ci bërëb ba ci jëmmam te xolam dafa nekk xelam dafa nekk kon yow mi nga xam ne nii sa jëmm nekk fa te sa xel nekk fa sa xol nekk fa yaa yaa ko ko gën a jege muy zurman tuhibbu ki nga bëgg ziyaare ko visit ko wa in shattat bi kat daaro donte kër yi ngeen dëkk dafa dafa dafa dafa taqali ko loolu bu mu doon bu mu doon aw lay déedéet waaye waxaala min dunihi sahlun wa awaaru bu fekkee ay joor ak i kekk kekk mooy suuf su nooy ak suuf su dëgër dafa dox ci diggante bi xanaa euh, bala ngaa àgg fa nga fa fam fa mu nekk da da da nga jaar fu nekk nee na loolu bu mu bu mu doon euh, problème déedéet bu mu doon problème loolu bu mu doon lay nga ne nga naan mënuma koo ziyaara déedéet moo tax mu ne laa yam naa naka bu'dun min yi bu mu la tere nga di ko ziyaare sore gu ngeen sorante ndax in innal muhibba liman yahwaahu zawaaru ki bëgg aji bëgg ji fu mu toll rek. dafa war di euh, visiter ki mu ki mu sopp ci ab xolam innal muhibba liman yahwaahu zawaaru loolu damay bañ a joxe exemple euh, di génn ci euh, thème bi ñuy kii waaye kenn ku nekk rek yàlla nattoo na la koo xam ci nii bu fekkee du nit ku baax ku demee ne Sëñ Tuubaa wala muy nitu yàlla nit ku yonente bu baax ku mel ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nattoo na la ku ñàkk solo koo xam ci nii maanaam da tëdd sax mu yàqalee nelaw. dana am ci diggante nit ñaari nit ñu bëggante moo xam bëggante diggante ñaari way dañ ñaari way dañ dañ dencante la ko dama ne euh, sëy sëyeen la da nga yàlla na toola xale bu jigéen boo xam ci nii da ngay tëdd maanaam moom rek ngay ngay ngay ngay gis doo mën a sax lekk wala nga tëdd ma gëmmintu doo mën doo doo doo doo mën a nelaw foo toll day mel ne euh, mi ngi ci sa kanam nga jàkkaar nga nga nga jàkkaar nga jàkkaarloo ak moom loolu ak cofeel moo koy def loolu ak cofeel moo koy def kon cofeel gi siñ Tuubaa di wax ne bëgg gi muy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te teewul fu mu toll roox gi ak xol bi mi ngi koy fekk biir Madina ci raw doxum ba di ko ziyaara fu mu ci la waxee woon di ñaan yàlla ñaanam yu rëy yooyu ñaanam yu neex yooyu ci biir xasida ga ba tey naa ko habli bi fadlika yaa wahaabu yaa maliki kaw nii la dayka kaman bi ruuxi zawaaru yow yàlla ci sag mbaax maa ngi lay ñaan nga may ma yow mi nga xam te yaay mayekat bi yaa wahaabu yow mi nga xam te ni bu ma amee buur yow te keneen keneen keneen mënu mënu ma mënu ma moom ku dul ku dul ñaan daal mooy nga may ma ma doon koo xam te ni day ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci ruuxam nga xam ne donte sama jëmm jàngi fii njaareem noon yi gàllankoor boobu mënu maa dem waaye defal ma loolu moom fu ma toll rek roog yi ak xol bi na nekk ci bërëb moom di ko di ko di ko di ko xam ne ñaan googu lu ko yàlla nangu ngi koy ñaan loolu di ko tawasuloo ñaan gi ngir yàlla nangul ko ñaan gi bi jaahi man xaytuma saadaatu qaarabahum shamsun tuqaaribuha fi sax wi aqmaaru gis nga ci tawasulu gi muy tawasuloo ci barke bi bi sax da ci teg teggaale yonent bi ci barke bi nga xam te nii saa yi ñuy wax nit ku baax as saadaatu xaytuma saadaatu qaarabahum bu ñuy tollalee nit ñu baax ñoo xam te ne ñuy jegante naan euh, diw ak diw jegante nañ booba day fekk ñu mel ne ay weer rek boo xam te ni jant ba dafaa sori jant bu ñuy weer euh, naatam li euh, ay weer naan weer yu moo gën leer weer yooyu moo a kii déedéet boobu daa fekk jant jant jant jant ba sore sore fa boobu ma diggante ma ngay junj diggante nit ñu baax ñi ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom ay weer lañ te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy e, bi ma nga sax continuer di wax waxi neex ci wàll woogu e, diggante nit ñu baax ñi ak yonente bi e, si siinu mbaax ak mbaax ak yonente bi ma nga naan aw annahu indahu fi ma yara basarun na baxrun xawaalayhi abaarun wa anhaaru diggante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ci mbaax ak mbooleem yeneen nit ñu baax ñi day mel ne euh, ak géej goo xam ci nii ay teen dañoo nekk ci wet gi ak ay dex dex yaa ak teen yi moom lu ñu bari bari bari ndox mënuñoo dab mukk géej ga wala ñu jeg jege jege ko fenn diggante mbaax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngëneelu yàlla ci moom noonu la mel ci diggante nit ñu baax ñi maanaam euh, teen ya ak dex ya kenn weddul na am na ndox waaye bari seeni ndox moom bu ñu koy tudd rek daa fekk géej géej géej géej géej nekku fa gis ngeen sëñ sëriñ bi maanaam euh, li ma doon wax keroog ci émission bi passé maanaam buy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du mu ngàññi kenn lu am solo la ci jamono ji ñu koo jàngee ci mbindum sëriñ bi buy ci diggante tagg gi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne day taggaale nit ñu baax ñi nangul leen mbaax gi leen yàlla defal waaye nag xamal na leen baax ngeen ab teen ku ne xam ne ne bari na ndox lool waaye bu ñuy wax bari ndoxuk teen wala bari ndoxuk dex daa fekk géej nekku fa ne wax dëgg yàlla baax ngeen yéen a ngi mel ne teen wala dex waaye seen ndox moom bu bu ñuy tudd bari ga daa fekk euh, euh, géej géej géej géej géej sore wala kenn gisul ndoxum géej ci misaal googu mu doon misaal diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ak gaa yi baax ñi waaye mu waxaat ci beneen waxin mu neex lil badri nuurun azimun yustanaaru bihi lakin isa lam yakun li shamsi izharu bayit woowu moom maanaam neexaay gi dafa ëpp ndax euh, lu lu lu lu ñëpp xam la lu ñëpp xam loo xam te ni xëy na ñëpp ñëpp a ngi gis euh, maanaam yi xam nga loo xam te ni lu palpable loolu ñuy wax lu palpable loo xam te ni maanaam ku làmb daj ko mooy misaal mi lil badri nurun azimun yustanaaru bihi lakin la lam yakun li shamsi izharu euh, weer yi gaa yu baax yi dañoo mel ne ay weer wala yonente yi nga xam ne dañ leen di tudd yonente yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo mel ay weer rek waaye nag weer ak jant mënuñoo bokk leeraay déedéet weer mën naa leer lool ñu tudd leeraay weer wi te weer ab leeraayam du yàgg ci fukki fan ak ñeent fukkeelu fan ak ñeent ga ci weer wi daanaka ci lay gën a ci ci lay ci lay ci lay ci lay gën a leer waaye du leer mukk ba dab leeraayu jant mbaaxu ñi yàlla baaxal ak mbaax gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baax dafa mel ne leeraayu jant bi ci leeraayu weer yi gis ngeen misaal mi mu jëlati nga xam nangul na weer wi ak leeram ndax leer leeraayu weer wi yàllaa ko yàllaa ko jox waaye nag yàlla moo jël weer wi jox ko leer gu yam jël jant bi jox ko weer leer gu ëpp gam jox weer wi jël biddi wi jox leen leer gu yam jël weer wi jox ko weeru wu leeraay gu ëpp gam jox biddiw ya loolu lu ma ta bàyyi xel la ci la nekk eh, di indi yeneen misaal loo xam ne nii eh, lépp rek day leeral diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbaaxam ak mbaaxaayu nit ñi ci des ma ngi cay wax ba naan yakunu lil ma maa un taaba mashrahu ma mashrabahu lakinnahu min xalijil baxri aqtaaru eh, ab teen mën naa bari ndox lool neexam ndox lool warka la waaye bu ñu koy comparé ci ndoxum géej ndoxum teen ma da nga naan lii ay toq la ay toq ay toq toq la ndoxum teen ndi teen ma lu mu bari bari bari bari boo koy comparé ndoxum géej day ndoxum teen ma ay toq ay toq la loolu na yon noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ci eh, diggante nit ñu baax ñi ak gaa yu baax yi gis nga misaal mi ci Sëñ Tuubaa ande ande andeet nga xam ne am dana nangul teen bari gi mu bari ndox ak neexaayu ndoxum teen nga xam ne xam na ne ku ne xam na ne moo dàq ndox ndox yu bare bari waaye boo koy comparé géej rek maanaam teen teen bu baax day am day am kersa ndax day xam ne moom euh, am ndoxam doon doonut dara ndax dangeen ngeen euh, dégg ba tàyyi ñu naan teen ba daa daa daa lan daa daa daa dégg daa digg xaw ma nañu ko waxee dafa dafa dem ba euh, amatul ndox wala ndox ma dafa wàññeeku waaye géej moom. maanaam <laughs> géej gi nangu na kër rek ngay ngay ngay ngay ngay dégg ngay ngay dégg nga xam am day gën a bari rek mu dellu misaalaat ko ci diggante at tallu maa un wala kal wab li mun sajiman wala tujaari nada bil maa yi am taaru nee na euh, at tallu mooy mbanant mbanant mooy taw cip cip cip cipal yooyu nga xam ne buy waaj a taw taw yu bari parfois léeg-léeg léeg bu nawet bi di waaj a dugg leen mu taw taw yoo xam ci day naan ah suuf su suuf si tooyul euh, taw bi kenn mënu cee ji boo waa loolu la ñuy yooyee at tallu mooy taw mbanant nga xam taw cip cip cip cipal lay doon lay lay doon waaye nag bu naan bët sébbi na loolu lañuy ñuy wax waame al wablu mooy waame nee na at tallu taw la moo xam ne ni maa euh, ndox la lay taw waaye nag at tallu moom mënut a yem moom mu ko ab ak ak wablu. woblu mooy waame ak tall mooy euh, cëpp cëppal yi muy cëpp cëppal taw taw taw cëpp cëppal ñaar yëpp ay taw ay taw la waaye kenn mënu leen a di leen di leen di leen yemale yemale yaakaar naa euh, mbokk yi dëkk fii ci réew mi danañ neex euh, expliqué loolu lool ndax fan ni yaakaar naa <laughs> ku ne gis na fi taw yoo xam ni nii ku ne xam na ne bokkut ak taw taw yi mi taw lal ci yenn réew yenn yenn réew yi loolu ngëneelul yàlla la misaal moomu ak ak rafetaayu différence boobu suñ su borom def ci diggante taw yooyu te lépp taw la ci asamaan si lay wàccee suñ borom moo koy ci ndigal suñu borom lay lay wàccee lay misaale euh, mbaaxaayu euh, gaa yu baax yi ak mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko nekk di wax ndeysaan wax euh, waxin yu neex sax ndeysaan zaakal malazul na jaata najaata bihi dunya wa uxra fa xaw xawlahu jaaru waxin wu daw yaram a ngi noonu mu ne kooku may wax day di misaal misaal yi may wax misaal lépp ci diggante teen ak géej wala taw cëpp cëppandal ak taw waame wala weer weeg jant bi wala misaal yi may misaal yëpp ki ma ci jublu mooy sama waay ba ki nga xam ne ci moom lay wéeru ci moom lay làqatu ci moom mooy sama làqatukaay ki nga xam ni ni na najaata bi ci moom laa yaakaare mucc muy yonente bi sallallahu alayhi wasallama ci moom laa yaakaare mu ci dunyaa wa muy àdduna ak àllaaxira ba nag fa mu daaneel bayit bi mooy waxin woo xam ne waxin wu daw yaram la muy falayti xaw jaaru ak a ak moom falayti xawlahu jaaru ak a neexoon ma doon ku dëkk ci wetam nga xam ne ma foo jóg ma mukk loolu waxin la ci euh, dëkk moom ci physiquement nga xam ne maam ni nga amee sa dëkkandoo ni nga xam ne yéen a yéen a yéen a taqaloo kër wala yéen a dë den den nekk nekk loolu noonu noonu la bëggoon a dëkk ak dëkk bi sallallahu alayhi loolu lépp li muy feeñal rek mooy cofeel gi nga xam ne nii sëriñ bi ëmbaloon na ko yonent bi sallallahu alayhi euh, wasallam ba noppi waxaat na ko ci biir euh, xaside googu sax ra raayee googu am na foo xam ne ma ngi naa ko wa huwa najibu allazi fi wasfi xilxatihi wa xulqihi qiilat asjaaun wa ashaaru mooy ki nga xam te nii mooy tànneef bi nga xam te nii ci jéem gi nga xam te nii nit ñi ñu ngi ko doon jéem a melal bind ma xel xelxa mooy bind bindina mooy melokaanu bind ma na na ko yàlla bindee waaye ak melo euh, jéem bi nga xam te ni nit ñi doon nañ ko jéem a melal jikkoom ya wa xulqihi qiilat asjaaun wa ashaaru waxees na ci ba tey waxin yu neex lool ci sajaa waxees na ci waxin yu neex lool ci shaaru waaye eh, boo gisee sëriñ bi loolu waxin woowu mi mu ci àbbu la mu ca jublu rek ma nga naan wala muy ji min zawil iflaaqi wal bulaga bi sajaa wa shaari mimma haza miashaaru eh, waxkat yi ak ñi nga xam te ni ay bulaxaa lañ mooy ñi nga xam nii ni euh, seen wax yi dafa dafa jotale xanaa lu bare bare mën nañ ko wax euh, ci euh, ci nit nga xam ne bu ñu masaana wax ci ku dul yonent bi rek daanaka danañ wax ba ëppal ci yow lañu lañu la ñuy wax sax waaye nag yonent bi moom nga xam ne mooy ki ne kenn mënta wax ba jot lañu war a wax ci moom ñi nga xam te ni yàlla da leen a may xel mu rëy nga xam ne am al mufliquuna lañ nga xam ne am ñu ñu waxin yu neex la ñuy wax lu xel mënta xalaat la ñuy wax lu rafet la ñuy wax lañuy lañuy la ñuy euh, xalaat ci seen xel yee lu ne wax nañ ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mufliquuna yooyu ak bulaga yooyu euh, liñ jéem a jéem a jéem a wax ci yonente bi ak la nekk ci yonente bi boo ko doon euh, xayma mi mel ne asaka ji sax génne jot jot jotuñ mooy fukkeelu lañ lañ la ñu war a ci moom la war a wax ci yonente bi la nekk ci moom bu ñu ko xaajoon fukki xaaj miachar ba mooy fukkeel ba waxuñ ko nga xam ne kon euh, un pour cent un pour sent sax mënuñ ko jot kenn la nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga waxin woowu sëñ bi euh, lu doy waar la ndax euh, yaakaar naa da da leen sagal rek naan muflixoon na yeeg bu laxaay waaye yaakaar naa moom kenn kenn kenn bu ñu doon doon classé kenn du ko jiit kenn du ko ci jiitu ci al ci ci ci ci ci ci iflaq googu ak ak ak balaaxa googu. te lam wax ci moom moom sax da cee boole boppam ne kenn jotul fukkeelu la nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim làq ci ay jikko yu rafet ak ci melokaan yoo xam te nii war na ko tudd ci di ko di ko di ko di la naan ahlul fasaxati turran bi sana madaxu wala sa yudrako bil akwa bi tayaaru ndeysaan <laughs> nee na gaa yi nga xam te nii dañoo am éloquence mooy waxin wu leer nañ lañu lañu la ñu mën a wax ci arab wala ñu mën ko wax ci yeneen langue di bind ak di euh, wax jëme jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp euh, tagg nañ yonent bi sallallahu alayhi wa waaye am na loo xam ne ni euh, biddiw yi mënoo yooto yóotoo yóotoo yóotoo yóotoo yóotoo yóotoo yóotoo yóotoo ba ba balaal balaal balaal asamaan man ngaa gën a njool nag ba xaw boo xam ne boo boo tëbee sut ñenn ñi waaye mënoo muusa kama cat ba ba ba ba jot ba jot ba jot biddiw yi te bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu nekk ak e, nit ñi li ñuy jéem a wax ci moom dafa mel ne nit ñi nit ñi nekk ci kaw suuf ak ak yonent e, yonent bi doon doon biddiw yi rek ñu nga bëgg nga bëgg laal biddiw bi ci la naan kaabun wa xassaanu wal busayri qad baraxoo wa kulluhum shaaruhu nuurun wa asraaru Euh, bokk na ci taggkat yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ci gënoon a siiw mooy kaabun wa xassaanu ak busayr tagg yu baree bari yoo lañ bind sëñ bi dafa baax sëñ suñ Tuubaa dafa baax ndax wax dëgg yàlla moom euh, ñooñu muy tudd euh, moom lim lim tagg ci yonente bi ñoom boo boolee ñoom ñëpp liñ liñ tagg yonente bi sallallahu alayhi wa li sëñ Tuubaa tagg ci yonente bi sallallahu alayhi moo ko moo ko ëpp fuuf moo ko ëpp foofu waaye nag dafa bëgg yonente bi nga xam te nii te daf doon ku reconnaissant maam ku ku rek ku mën a reconnaître euh, nit lañ def ci yonente bi da ko da ko da ko da koy reconnaître mu nañ Kaabun ak Xasaan ak Busayri ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ xat baraaxu maanaam euh, am nañ baraaxa euh, def nañ lu rafet ci tagg gi ñu doon jéem a tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wa si shi'ruhu nurun wa asraru te ñoom ñëpp seeni way ay leer a ci nekk ak ay secret yoo xam te ni euh, ëmb nañ ko ci jëmal ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag mënuñoo euh, jot mukk lañ war a wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba euh, nit ki boo fekkee da koy jéem a tagg. Euh, te mënoo jot euh, la nga war a lim ci moom da ngay toll foo xam ne da ngay da ngay tënk la ñuy wax tënk da ngay tënk fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillahi kullihimu aw fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu duunahu aqlun a afkaaru liñ mën a xam-xam daal ku mën a xam liñ mën a xam ci moom li mën a xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa mooy moom daal mbindeef la te moom moom mi nga xam te ni mbindeef la ci yàlla yi xel mënu koo jot xalaat mënu koo jot loolu mooy mooy day tagg day tagg mooy mënoo xalaat sam xel ba sam xel ëmb la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jikko yu rafet sam xel mënta xalaat ba xalaat la nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga koy ba nga koy ba nga koy wax loolu moom mooy dayo dayo dayo tagg wa annahu duunahu aqlun wa afkaaru ba mu ne nag fala taxisu ibnu abdullahi bil fadla bu ngeen lim inna al fii yuxfiha sinimaaru fala bu leen xiyaas ibnu abdullahi doomi abdullahi jëm muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil fadla bu ngeen lim gaa yu baax yi ci nit ñu baax ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seppi leen ko seppi leen ko bokk bu mu bokk ci course bi comme li nga xam te ni booy lim wali yu yàlla yi sëñ Tuubaa mën nga koo seppi mën nga koo seppi ndax euh, li mu am ci yàlla doo ko gis ku ko fa ku ko fa am li mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo ko doo ko gis ku ko fa am lim defal yàlla ci di ko tagg ak di ko jaamu ak li ko yàlla jaral ni ko sëñ Muntaxa di waxee sëriñ bi li ko yàlla jaral jëralu ko kenn. <laughs> loolu moom lu wér la loolu moom ku ne xam ne ci xam ne ndax li ko jaral kenn mës ta gis doomu aadama boo xam ci ni yow yàlla jaral na la loolu ko ci réew mu nekk ne waxuma la réewum Sénégal ci àdduna bi fu nekk euh, dégg ngeen fa lu nekk ku ne jaamu yàlla ba am lu ne waaye moo taxaw julli ci ci kaw ndox mi ci géej gi moom wax dëgg yàlla dégg déggu leen ko fenn mooy li ko yàlla jaral jëralu jëralu ko jëralu ko kenn euh, keneen moo tax mu ne bu ngeen ni euh, lim nit ñu baax ñi génne leen ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam falaa taxiisu min abdullahi bil fudala innal kawaakiba fii sinimaaru nee na biddiw yi moom bu ñuy nekk di xool siinu taar ak seenub leeraay ak yooyu dafa fekk ja euh, weeru weeru weeroo nekk fa rek weeroo nekk fa ndax waaye saa weer weeru ñëwee moom ñu fàttee biddiw ya bu fa bu fa weeru nekkul nag wax dëgg yàlla ku ne sa ngaa xool biddiw yi biddiw bii moo gën a leer biddiw bii gën a kii biddiw bii moo gën a sàngam nangam waaye daa euh, euh, weer génnagul ci la ko waxee wax ji neex naa lil mustafa lil mustafa lil mustafa xayri xalqillaahi manzilatun law wujjihat naxwaha kullal wara xaaru bu ñu boole woon set milliards doomu aadama yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf euh, ñu dajale leen dajale seen kattanu euh, gi ñu am ñëpp wan leen waay ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am façon borom neen duñ duñ duñ ko attan duñ ko attan maanaam dañuy gëlëm la wujjihat naxwaha kullal wara xaaru gis nga loolu kon mooy wàccuwaay bu kawe kawe kawe kawe la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am ca euh, sun borom ma ngi koy wax it ndeysaan euh, waxin wu neex ndeysaan kilita yadayhi laha saayun tulaazimuhu badlun wa basun wa man jaaro li mu doon wax léegi rek daan na ci euh, yamini alayha day non astaghfirullah yaminu nabi fiha ataaya li si tida yasaaru nabi fiha xafaaya li si tida loolu moom <laughs> da ko waxin waxin waxin wu bari sax nee na ñaari loxom yi boo ñëwee fekk fekk fekk fa dara boo ñëwee te jàmm indi la loxom ndeyjoor ba lay jëflante ak yow muy jàmm ja ngay wut am na fa boo ñëwee te aw ay yëkkati la it euh, loxob càmmoñ bi boo boo ñëwee euh, la lay toroxal ci lay ci lay ci lay ci lay jóge waxit na ko ba tey lahu min al-ilmi maa lam yaxwihi basharun aw jinnun aw malakun wa sadru mis misxaaru euh, yonent bi na ci xam loo xam te nii maanaam euh, doomu aadama yàlla tawfiq xeliwu ko mooy làq xam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam wala euh, jinne nga xam ne maam jinne yi li ñuy bari bari xam-xam xam-xam ba yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaaj ba xaaj ba xamuñ ko malaaka yi sax xamun xam-xam ba yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu wàccuwaay la bu bu kawee boo xam te ni maanaam euh, euh, dayo tagg munu munu ko jot ci nit koy tagg ci xam-xam ci xam ci xam-xam am nga xam-xam boo xam ne nii jinne amu ko malaaka amu ko waxuma laa euh, mbindeef comme yow doomu doomu aadama waaye bu ñu xoolee loolu lépp ni ñu ci mën a jàng mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Sëñ Tuubaa di tagg lépp Sëñ Tuubaa mustaxaababal ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba jox ko dara yàlla moom loolu day ñaawal tagg booy booy tagg nit ba jox ko lu mu yéyewul rek da nga da nga boobaa yaa yaa yaa ngi koy xas kon képp koo xam te ni yaa ngi waxati jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ngay wax jëm ci Sëriñ Tuubaa wala ngay wax sax ci am benn waay boo xam te ni comme Mustafa la woon nii rek léeg nga di ko tagg ba nga xam te da koy jox loo xam te ni day leer na kii euh, saa ji fi nga koy fa nga koy fa nga koy teg àggu boobaa yaa boobaa yaa yaa yaa yaa ngi koy xas damay wax parfois léeg ci suñu mbokk Sénégal yi léeg nga gis ab géwal euh, jàkkaarloo yow di la wax loo xam te ni dangay xam ne yow kii mi ngi lay xas ndax lam lay tuddal ci say maam ci ay mbaax ak yow fi nga toll ci ci ak caay-caay maam da xam ne yow maam wax dëgg yàlla kii dalay xas kii dalay xas ndax yaa gën a xam sa moom géwél bi jàkkaaroo yooyu da wax da lay wax ne xaalis bi nekk sa poos bi sa poos yi la soxla waaye li mu lay wax ci ak mbaax nga ne euh, jegewoo ci ak mbon ak fa maam yi tolloon ci wax dëgg yàlla boo ko nattalee li ñuy wax li ñuy wax aw xas aw xas lay doon ci yow euh, kon li ma doon wax lépp rek loolu loolu la euh, yàlla mooy yàlla te euh, sëñ Tuubaa yàlla yàlla rek la ko mas a def yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi la ko mas a teg teg ko foo xam ci nii fa ko yàlla teg la ko la ko la ko teg moo tax moom tamit wàccuwaay ba ba mu am ci wàllu yu yàlla yi yàlla wàccee ko boo xam ci nii maanaam wàccewu fa kenn wàccewu fa keneen te lu yàlla wormaal wormaal na ko nit yàlla yëpp mbokk na leen wor wor wormaal leen weeri yàlla yi yàlla wormaal yëpp wormaal na leen euh, dem na ba sax fan yii sax maa ngi koy kii am na bayit mu neex ndeysaan ci euh, xasida ak Mafatihul Jinaan dama jàppatul bay bay bayit yi xam naa ne waxtu wi xoj xoj nañu sax ndeysaan waaye incha allah tabarakalla <laughs> danañ ci gën a yaatal ci waxtu wi di ñëw waxtu euh, yeneen waxtaan yi ñëw ndax tey jii bu ñu jëloon xasida ak yasuru rasulallahi xatti bi mawlidi yaduuma lanaa bi seen fii xayre mawridi du doy waxtu wi ñu war a waxtaane bu ñu jëloon. bayit yi sëñ Tuubaa indi ci jasbul xulub salli wa sallim sarmada ndax bayit yooyu sax ndeysaan euh, tey jii amoon naa yéene ñuy waxtaan ci lu gën a yaatu ndax euh, image yi nga xam te ni maanaam mi ngi koy wax ci yont bi yow sëñ Tuubaa booy jàng jës jës boobu day mel ne yow yaa ngi yaa ngi jàkkaarloog yont bi da koy identifier identifi boo xam ne nii bu la bu koy wax day mel ne yaa ngi jàkkaarloog yont bi sallallahu alayhi wa sallam ci ya ci lex ya lex ba ci taxawaay ba ak ci euh, flaco bi ni nga xam ne flaco woon astafurlah maa ngi jégalu sax ni nga xam te ni xëy na doontoon nit ku am yaram doontoon nit ku sew ruuj doontoon nit ku gàtt doontoon euh, nit ku euh, ku rëy ba mel ne ak day ni ni ko wala fi di waxee ak day ni day gàtt ñuul ñaaw lex yëre yi jëbëre yi lu mu sol mu ëpp ko dof lay doon du man baase comme ni ko <laughs> waxkat daan waxee yonent bi melutoon noonu moom lépp dafa yemoon ci nopp nopp ya bët ya bakkan ba ah, lex ya ba euh, nuuru bakkan ba maanaam yaxu yaxu bakkan ba ni mu xawoon fa fa fa fa nuural nii ak bëñ ya ak ndoxum bëñ ndoxum bëñ ndoxum bëñ ya sorante ga diggante bëñ ya sorante loolu lépp war a war a na si ñëw ak dënnam bi ni mu ni mu ni mu yaatoo ni mu yaatoo woon ak biir bi nga xanaam euh, biir bi ak dënn bi ñoo tolloo woon xanaam euh, toon ko ku ku biir ba mel ne am am Modou Seye waxiin yooyu melokaan yooyu tànk ya ak yaxi loxo yaag yaxi yaxi tànk bi lépp da ko da ko da ko jox misaal kon incha allah tubarkalla xëy na euh, bu yoon jeexul waaxu li jeex ñu ngi leen di jox euh, dox daj incha allah ajuma bi ñu jëm euh, dana fekk ñu gàmm ba ca suba sax waaye ñu ngi leen di yi ñëpp ci weeru gàmm gi te di soññ ñëpp ñu bàyyi xel gàmm gi ndax sëñ Saliou doon na wax naan guddi gàmm day ñëw ngay nga yemale ko guddi jë ko jiitu woon loolu dara dara dara jëru ko kon nag guddi gàmm gi ñu ngi. loo xel ñëpp balaa gàmm nga ñu baril jàng alxuraan baril jàng xasida yi te guddi gàmm nga ñu baril ci lool asalawaatu ala nabi yi ci jàng xasida yi te ndax lu ne ci nekk ci nekk ndax incha allah danañ ci gën a ñëw ndax eh, màggal guddi googu moom la ci sëñ Tuubaa wax ku ko xamoon maanaam guddi yëpp yow jaral na maanaam guddi yi ko yiiti yiiti yëpp loo ci def nga def nga def ko waaye bu guddi googu ñëwee moom nga def effort ba nga xam ci ne maam da nga xam ne yow def nga def nga def nga def nga ci la nga la nga la nga war a def ñu ngi leen di ziyaara bu baax baax tubarkalla di ñaan yàlla di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla euh, fa fam fam fa mu nekk fa fa yàlla nekk te bëgg doomu aadama yëpp teg ko fa yàlla nañu taw féexale bañ teg ko fa fa mu teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bëgg jaamam yëpp teg ko fa yàlla nañu ko yàlla nañu ko fa teg fa mu teg Sëñ Tuubaa ak mboolem wàllu yu yàlla yi wàccuwaay ba mu leen jox kenn ku nekk rek yàlla nañuy taw feexale ñu mën laa jox sa wàccuwaay ba nga xam te nii njariñ lam ëmb ci yow danañ ko jariñoo te kenn bañ a loru ci bañ a bañ a loru ci kenn te diggante jullit ñi yàlla na ci suñu borom gën a dolli jàmm ndax euh, l'islam wax dëgg coow li bari na ci lool jamono waaye jullit bu nekk rek war nga di ñaanal jullit ñi war nga di ñaanal l'islam l'islam it ni ngay ñaanale sa ni ngay ñaanale sa bopp ak sa ak sa njaboot yàlla suñu borom yàlla na baaxal ñi bon yàlla na euh, ñi baax yàlla sàmmal sàmmal leen seen seen baax yërëm ñëpp toroxal noonu lislaam yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منهم شيئا منهم على شيئا